سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقم لساني واحللا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen bal aq te di leen bal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole jéggal mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxe ànd ak yéen ci ay bis jot ci suñu jotaayu xam-xam yi ñuy ànd ak yéen di ci fàttalenteendoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ci suñu jotaay yooyu dañuy dellu si rek ko ànd ak yéen ñu tolloon ak yéen ci téere bi nga xam ne moo tudd jazbatu sigaari an la'ibil xidmatil muxtaari ñi ngi woon ak yéen ci suñu bind bi weesu ci bunt bi nga xam ne ci lañu sëriñ bi radiyallahu di xamal di di xamale gëm gi ñu war a gëm yonent yi ak lan lañ war a gëm ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu mel ni buntu boobu sori woon nañ ci lool ndax ñu ngi e, taxawoon suñu bind bi mujj bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi di wax ne e, kayfa waxat xarama kitmaanan kama laana man yafaluhu rabbu sama wa aydan nahal kulla bila istisnaai bi ayni burhaani amaanati bada burhaanu tablirin liman xat naqaba ci bayit yooyu ci lañu taxawoon suñu bind bi mujj sëriñ bi di wax ne naka la suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo araamal uh, ci ñoom ak nëbb te rëbb kenn képp ku ko def naka la koy dagganale ci ñoom kon kon ñoom yonent yi nëbb li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala yónni dafa araam ci ñoom waaye itam ak mooy Euh, ak jëf ñaawteef itam dafa araam ci ñoom ndax ñoom dañoo doon nit ñoo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf leen yónni ñu war leen a roy kon lépp loo xam ne moom lañ def dañ leen cee war a roy kon mënuñoo def lu dut lu suñu borom bi subhanahu wa digle waaye mënuñoo def lu dut aw yiw euh, lépp loo xam ne moo aju ci ñaaw ñaawteef loolu day araam ci ñoom ñu euh, def ko sëriñ bi di continuer ba tey di wax ne amma jawaazu cardin calayhimu calayhimu salaatu min rabbihim wa mushaahadatu wuquucihaa bihim wa huwa tasallin wa irtifaacu xaalihim sëriñ bi radiyallaahu anhu nee amma jawaazu cardin ndaal daganu gaar calayhim ci ñoom calayhimu yal nekk ci ñoom assalaatu dolli xiwal min rabbihim ku seen boroom seen boroom fa mushaahadatu mooy gisuk ak tàbbeem bihim ci ñoom waxuute loole nag te ak miise la warti faaw xaalihim ak yëkkatikoog seen mbir nee na dagan gi nga xam ne lépp loo xam ne day gaar doomu aadama ci loo xam ne du ko du wàññi dara ci darajaam dagan gi nga xam ne day dagan cimu mu gaar leen loolu luñ mën a gis la mu dal ci seen jëmm waaye bu dalee seen jëmm itam du leen yokk dara lu dul day yëkkati seeni daraja waaye day gën a kawel seen seen maqaama ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam kon lépp loo xam ne day gaar doomu aadama te du tax ñu koy daw wala du tax muy euh, wàññi muy muy muy indi benn wàññat ci moom wala muy tax nit ñi euh, di ko ñàkk a xemmeem loolu lépp dagan na ci ñoom comme ni ñu ko misaale woon ci bindi weesu lu mel ni feebar feebar boo xam ne du tax nit ñi du la daw wala ngay euh, duggalante ak nit ñi di dugg ci marché yeeg a génn di commerce yooyu yëpp nit ñi dañ koy jëfandikoo waaye ni mu dagane ci ñoom noonu la dagane ci yonente tey te it day yokk seen maqaama waaye day yëkkati seen daraja ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam ndax loolu itam bu ñu koy def di ko def ci anam ba nga xam ne mooy anam ga dagan loola dana tax nit ñi man leen ci roy xam naka ah, nga xam ne noonu lañ ci war a jëflante comme tey jii bu fekkoon ne ab yonent dafa dugg ci biir marché de commerce dana bàyyi xel bu baax a baax xuduud yi nga xam ne moom la ko charia tegal muy limite yi nga xam ne moom la ko charia tegal ci commerce boobu su ko defee bu koy jëfandikoo nit ñi nga xam ne ñoo koy gis danañ ko roy ca loolee waaye dinañ fexe ba euh, limite yi nga xam ne moom la charia tekki loolee ñu fexe ba sàmmonte ko kon lépp loo xam ne day gaar doomu aadama rek te du du tax euh, du du du tax ñu koy daw wala du wàññi dara ci dara jaam loolu lu dagan la ci mu gaar ab yonent waada du rusuli limub yonent yi nag jiimun euh, ñett la summa yaa fukk baadahuma nekk na seen ginnaaw muxumalu siini siin gu ñu neenal fan yaa na ko wattu siin gu ñu neenal nag mooy euh, trois cent kon limub yonent yi nga xam ne euh, yàlla daf leen a yónni mooy ñi nga xam ne dañ leen a wax yu ba pare daal di leen di yónni ngir ñu war a dem jot li euh, li nga xam ne moo di ab risaala ñooñu seenub lim te ñetti téeméer la ak fukk ak ñett waxay duxum seenub tënk nag jaysun mooy jaysun di ñetti téeméer ak fukk ak ñett waxii la waxeef nañ ne daysun ñetti téeméer la ak fukk euh, ak fukk ak ñeent bi daali muhmalan ci daal gu neenal waxii la waxeef na ba tey ne haysun ñetti téeméer la ak fukk ak juróom kon limu yonent yi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf leen wax yu ba pare daal leen di yónni ci ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi ngir ñu war a jottali risaale yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala ne wax nañ ne ñetti téeméer la ak fukk ak ñett ñii wax ne ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ñii wax ne ñetti téeméer ak fukk ak juróom amma jamiul anbiyaay daal mboolem yonent yëpp nag moom mooy nabi yi war rusuli ak yonent yi fa xakadun fa na nga xam ne xakadun seenub lim day xakadun mi ngi toll ci euh, téeméer ak euh, ñaar fukk ak ñeent minal ulufi ci ay junni yaa rajul yow waaj nee na bu fekkee ne limub yonent yi nga xam ne nag mooy ñi nga xam ne yàlla daf leen a wax yi te yebal leen ñu war a dem ci mbindeef yi jot li leen risaala muy message bi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala ak ñi nga xam ne yàlla daf leen a wax yu te waxu leen ñu jotali ñi nga xam ne ñoom ci ñoom la leen euh, ñooy mbindeef yi ñooñu seenub lim ñoom ñëpp boo ko boolee mi ngi tollu ci cent vingt quatre mille euh, ci ay yonent ñoom ñëpp seenub lim noonu la toll moo tax mu ne amma jamiul anbiyaay ndaal mbooleem nabi yu yëpp war rusul ak yonent yi fa na nga xam ne xakadun seenub lim mi ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent minal uloofi ci ay junni yaa rajul yow waaj imaanukum seenu gëm nag Euh, bindee fi bihim ci ñoom ata dikk na tafsilan ci ak teqale aydan ba tey fa'uhu na nga leen wattu fatafuqu kon da ngeen kawe aljila mas ga ne na euh, yonent yooyu nga xam ne day suñu borom bi subhanahu wa taala daf leen yónni muy ñi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala leeral na leen ci alquran ak ñi nga xam ne leeralu leen ñoom ñépp dañ leen a war a gëm waaye nag ñi nga xam ne dañ leen a teqale ci alquran moom dañ leen a war a gëm ba pare war leen a xam moo tax mu ne kom seenu gëm bihim ci ñoom yonente yooyu ata dikk na tafsilan ci ak teqale ay den ba tey fauhu nanga leen wattu fa tafuuqu kon da ngeen kawe da ngeen euh, euh, tiim aljila seenu maas mu ne nag fa mayisu na ngeen ràññetle allazina ñi nga xam ne fil qur'aani nekk nañ ci alqur'aan waa adduhum te seenub lim kahun ñaar fukk la ak juróom bilaa noqsaanin ci lu amut benn euh, wàññet nee na yonent yooyu nga xam ne ñoom la suñu borom bi subhanahu wa taala yónni day ñoom ñëpp la ñu war a gëm ñoom ñëpp lañu ñu war a gëm waaye ñi nga xam ne nag suñu borom subhanahu wa taala daf leen a lim ci alquran ñooñu moom dañ leen a war a ràññetle xam seenub lim bu baax a baax xam seeni tur te seenub lim mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom ci loo xam ne amul wàññi kon alquranul karim tudd na ñaar fukki ak yonent ak juróom ci eh, suñu borom subhanahu wa taala tudd na ñaar fukki yonent ak juróom ci biir al alquranul karim waaye teqaleel ñu ko ñu xam ne ñooñu ay yonent leen ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo leen yónni waaye loolu tegtalewul ne ñoom kese ñoom lañ war a gëm waaye yeneen yonent yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa leen ci alquran itam ñoom ñëpp dañ leen a war a gëm waaye ñii nag moom dañ leen a war a gëm ba pare ràññeet le leen xam seenub lim waaye xam ñoom ñooy ñan yonent yi nga xam ne ñoom la alquranul karim tuddu euh, te seenub lim toll ci ñaar fukk ak juróom moo di yi ñuy bëgg a tudd muhammadun moo di muhammad alayhi salaatu wasalaam wa aadamu ak aadam nooxun ak noox huudun ak huud idrisu ak idris luutun ak luut saalihun ak saalih dawuda ak seydna dawud ñooñu ñëpp ay yonent la seydna muhammad sallallahu Seydina Adam Seydina Nuux Seydina Hud Seydina Idris Seydina Lut Seydina Saleh Seydina Daoud wa yusufun ak yusuf wa yunusun ak yunus ayubu ak ayub harunu ak harun yaxya ak yaxya wa kazaniki ni ak yaqub iliyasu ak yonent yàlla iliyas wal ak yonent wa ibrahim ak ibrahim wa ishaqu ak ishaq ismail ak ismail wal kalimu ak euh, seydina musa alayhi salatu wassalam wa zakariya ak seydina zakariya suleymaan ak seydina suleymaan kaza niki noonu zulkifli zulkifli isa niki noonu seydina isa wa shuaybun ak seydina shuayb oxiza jàppef na leen ala nabiyina euh, tukkee ci sunu yonent almuxaddami kadi kun jiital alhumaam summa alayhim yàlla na nekk ci ñoom assalaatu wasalaamu jàmmi suñu borom subhanahu wa taala aku ak xéewalam ak yërmandeem kon ñooñu ñooy yonent yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala tudd na leen ci ak teqali ci alquran ñu mu toll ci ñaar fukki yonent ak juróom ñooñu dañ leen a war a ràññetle xam ñoom ñooy ñan waaye xam ne ñooy yonent yi nga xam ne itam ñoom la suñu borom subhanahu wa taala lim ci alquran ci ak teqale waaye nag loolu tekkiwul ne ñoom yonent yooyu kese lañ war a gëm waaye euh, yonent yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala yónni na leen ba pare tey teqalewu leen wala tudd leen ci alquran itam te ñu xibaar ñu ne ñooñu ay yonent lañ itam yooyu yëpp dañ leen a war a gëm kon euh, loolu moo aju woon ci bunt bi nga xam ne Euh, moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tënk tënke ko at-ta'rif bi kay kayfiyatil imaani bi rusul alayhim salaatu wassalaam kon euh, naka lañ war a gëm ak laka lañ war a lañ war a gëm ci ñoom loolu lépp sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko ci bunt bi waaye itam leeral nañu jikko wala melokaan yi nga xam ne moo yell mu nekk ci yonent yi waaye melokaan yi nga xam ne moo jomb mu nekk ci ñoom ak li nga xam ne dagan na ci ñoom yonente yi alayhim salaatu wasalaam ak seenub lim euh, ci ak teqale waaye seenub lim ci ab bu bës loolu lépp sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko ci bunt bi kon ñu ngi tuub bu baax tey jégglu di wàcce foofu kàddu gi di wax ne in urida ilal a mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu